Euh, tey jii mu nekk euh, bis boo xamante ne bis bu mag la ginnaaw nag sunu ndaje yu baree bari yoo xamante ne am nañ ko ak sunu partenaire bi ginnaaw tamit euh, bi ñu bureau bi laajee nañu dem xool site bi fa nga xamante ne moom mooy ca Théo dem nañ fa def na il y deux semaines am forte mobilisation je pense que ñu bari demoon nañ dem xool ko ñu gis ne site bi site bu baax la ñu gis ne aussi kayit yi kayit yu baax la loolu yëpp test xool nañ ko ñu xam ne tey véritablement loolu lu am solo la tey nag. muy beneen muy acte boo xamante ne moom mooy clôturer loolu yëpp loo acte bi ñu def nii tey mooy si signature de protocole moom mooy wanee ni véritablement deux cent parcelles yi nga xamante ne ñu nga ca teewoo léegi ñun acteur de médias ñun ñoo ko moom kon nag ñun ñi ñoo war a jóg nag léegi farlu taxaw ci pour que loolu mën a antu waaye ci loolu fow kenn ku nekk dugal sa loxo ndaxte euh, ñun presse bi dañoo dañoo bëgg li keneen moom dañu bëgg fësal li keneen moom waaye sunu yëf bopp duñ ko mës a topp am na ku ko fi wax euh, léegi nga dund nga jox sa lépp presse nga def ci lu ne yàlla def li muy def amoo fooy dugal sa njaboot loolu véritablement yaakaar naa ne loolu dafa war a jeex te jàpp naa ne bu ñu toppee lii dina jeex parce que tout simplement sunu partenaire bi nee na. am na possibilité boo xamante ne mën nañuy jox ba mille parcelle fi nga xamante ne moom foo lañ jël mais fu mu toll nii ñu ngi ci 200 ci 200 yooyu ma ciy woo woo président de la république son excellence monsieur makisal Sall mu jàppee ci 100000 logements yi ak lancement bu mu def ci 100000 logements projet boobu presse bi dafa di jouer un rôle important ci Sénégal. mu boole ci 100000 logements yooyu mu boole ci li nga xamante ne moom mooy presse bi mu jàppale li nga xamante ne moom mooy 200 200 logements yi nga xamante ne am am nañ ko moo tax ma koy laaj balaa muy dem man loolu laa koy souhaité te loolu laa souhaité loolu la ñu souhaité ñun ñëpp mooy que balaa muy dem très rapidement mu poser la première pierre. xeer bu njëkk bu maison de la de bu cité de la presse te loolu histoire da koy retenir loolu du fay ci histoire parce que danañ ne moom bi mu fi nekkee la teg li nga xamante ne moom mooy première pierre cité de la presse parce que moom balaa avant muy ñëw amoon na maison de la presse fi ñu ne moom maison de la presse fii la ko fekk donc keneen buy ñëw war na fi fekk la cité de la presse je pense que loolu mën na ko te loolu la ñuy xaar ci moom jàpp naa ne euh, dina am dina porter attention particulière ci li nga xamante ne moom la ñuy wax parce que nekk na koo xamante ne véritablement jàpp naa ne bëgg na presse bi euh, mu am li nga xamante ne moom mooy lii di euh, vraiment presse bi ñoŋ donc loolu na pour mu am. bokk na ci li nga xamante ne moom mooy logement faw mu am ko waaye tamit wér-gu-yaram parce que fii lan lancewoon li nga xamante ne moom mooy lii di mutuelle de santé euh, des acteurs des professionnels de l'information et des et yaakaar naa ne tey jii beneen mbir la boo xamante ne bu ñu posé jàpp naa ne lii nii bu antoo li nga xamante ne moom mooy presse bi lii di mauvais souvenirs yi lii di yi nga xamante ne ñun ñi sax dañ koy jooy bu ñu ko bu ñu ko xalaatee loolu dana jeex te loolu nag dama ci woo les acteurs de la presse nañu parce que tout simplement suba bëgguñu ñu naan diw dem na te amul logement diw dañ ko génne ci këram parce que am na ci presse bi ñoo xamante ni dañ leen di déloger parce que tout simplement fay ñu logement te bëgg nañ loolu vraiment mu jeex à partir de projet bii te gis ngeen ne IB euh, BK IMO dafa xam ne socialement moo tax ñuy jóg loolu moo tax moom tamit mu ñëw socialement participer du ñu accompagner ci li nga xamante ne moom lañ nekk nit ki nag bu lay accompagner yow tamit dangay xool li nga xamante ne li muy def nga def ko pour ngeen mën a mën a jëm kanam. waaw pour bokk ci euh, je pense que wax nañ ko waxaat ko bokk ci euh, jafewul. li njëkk mbir munoo ci bokk te dugalee sa tànk pour nga dugal si tànk na faw nga fay li nga xamante moom mooy sa part sociale ci coopérative muy 10 mille francs beneen dix mille francs pour nga bokk ci nga am carte li nga xamante ne moom mooy APRES am na tamit 2000 francs boo xamante ne loolu pour mutuelle bi la même bu fekkente ne yow am nga euh, prise en charge sanitaire mais dañ ne dañu mutualiser les forces pour que ñuy mën a jàppalante parce que solidarité lañ wax donc ñu ne 2000 francs bi donc lépp boo ko boo ko xayma pour nga mën a bokk ci li nga xamante ne moom mooy parcelles yi foo nga foo nga génne 22000 francs donc jàpp jàpp naa ne tout simplement tey kenn ku nekk ñaari fan war nga mën a mën a génne 22000 francs nga a nga mën ca bokk parce que am nañ yaakaar ni am nañ yaakaar président de la république ci woote bi ñu wootee ni danañu fekk si pour que deux cent parcelles yi ñu mun ko am fekk benn journaliste benn acteur de la presse dugalu ci benn dërëm te loolu président de la république mun na ko parce que def na ko ci feneen donc yaakaar naa ñun te war nañu ko mën a defar. prochain acte rek euh, jëm. dañuy jéem a rencontrer les associations faîtières les associations de presse informer leen par rapport wala wax leen ci li nga xamante ne moom mooy euh, véritablement lii di euh, lii di lii di lii di projet bii. parce que nekkul APRES APRES association yëpp ci bokk man président association laa beneen euh, vice président ci beneen association te président association bi laa. ñun ñëpp war nañ mën a bokk ci association parce que association bi deux volets kese la mooy solidarité jàppalante ak li nga xamante ne moom mooy mbirum social. kon yeneen association yi yëpp war nañ mën a ñëw bokk pour que mu gën a yaatu. kenn ku nekk gis sa bopp parce que partenaire bi nee na mën nañu jox jusqu'à 3000 3000 parcelles donc 3000 parcelle tey bu ñu ko joxee ci acteur de la presse jàpp jàpp naa ne ñi ciy des du bari donc loolu nag pour mu am il faut que kenn ñoom ñëpp ñu bàyyi li ñu jàpp li ñu li ñu jàpp ñu ñëw bokk ci pour que véritablement mën a dox.